ñetti fan ci weeru décembre ci at bu nekk ñuy màggal bés bi ñu jagleel way laago yi taax ba atum ren ji ñuy sàkku projet de loi bi nga xamante ni njiitu réew mi tënkoon na ko mu daldi koy jëmmal bu jëmmalul lépp itam ñett yi nga xamante ni ñoo ci ëpp solo am nañ yaakaar ni dina ko jëmmal. bi ci njëkk mooy eh, article 48. bi nga xam ne dafa ne il faut ñu installer une haute autorité chargée de la protection des personnes handicapées loolu euh, entité la boo xam ne dafay nekk présidence de la république waaye njëriñ bi muy am mooy day dajale lépp li nga xamante ne ay ressources la yu jëm ci nit ñooñu ñu boole leen ko loolu benn article la beneen article bi mooy article 47. boobu dafay ku lu mel ni ministère des finance ñoo ko war a jël ndax day nekk benn fonds boo xam ne day destiné uniquement pour appuyer protection ak autonomisation wu personne handicapées yi bi ci des nag moom mooy article vingt neuf nga xam ne day day jublu ci ci wàllu ñi nga xam ne dañ leen di jël ci liggéeyukaay yi ku ci nekk si ñoom dañuy fexe ba bu ciy recruter rek quinze pour cent téeméer boo jël fukk ak ak juróom yi dafa war a nekk personne boo xam ne dafa ànd ak wayu laako honorable Ousmane Thiam di xamle ni. am nañ ay ab programme bu ñu teg ngir màggal bile bés. waaw le trois am na am na am na seen coom euh, forum bu mag bu am boo xam ne euh, président euh, fédération bi muy Moussa Thiaré ak fédération bi yëpp ñoo ko organisé jàpp naa ne sax premier ministre Amadou Ba moom moo koy présider waaye bu loolu weesoo am na foire yu ñuy def am na penc yu ñuy def di waxtaanee yëfu. Euh, nit ñi nga xam ne dañuy ànd dañuy dund ak laago naka la ñuy def ba mën a demal seen bopp naka la def ba économiquement ñu ñu demal seen bopp naka la ñuy def ba boddi bi ñu leen di boddi ci biir xeet bi ñu ñu dindi ko moo tax dañ ko mujj tàllal def ko semaine bi yépp bés bi ñu jagleel way laago yi dul am solo waaye bu ñu sukkandikoo ci ñoom li leen ëppal solo moom moo di yile luwaa ñu daal di koy jëmmal ngir ñoom ñu mën cee gis seen bopp